far ba Ngom ngom ngom ngom ngom ngom ay way gior mbay gior mbay afi lay fi mujjé wa of nak jàppante na lub sacc la la la la sama sama milliard yoy de sama wal nga ci de ak wàlli sénégalais sama wàll nga ci wàlli sénégalais nga ci réew mi ku fi juddoo di fi noyyee rek sunu xaalis ak ci Farba Ngom xaw ma kañ nga ñuy fay nag kañ nga ñuy jox lañu ñu moom man bàyyi ba moom laa xamul of nag nee naa yaay of nag nee naa yaay day talax-lax yi ba kër bàyyi Farba di ko offensé ay waaye of nag of a ngay yoonal waaye ah, ah, ah, ah am réew de boo ci nekkee da ngay wote démocratie waaye yéex ngeen koo def de bàyyi Farba de de yéen moo yéen a gi nag xam ni li ngeen ko fekk këram li ne li ne ci armoire yeeg suufu eh, eh, lal yeeg eh, sous terrain yi moo ko ëpp Baye Farba xam nga lii du lu bett ci ñun Baye Farba mii day randale day day day lewal lu moomul Baye Farba loolu moom sénégalais yàgg nañ koo xam ah Baye Farba mii alal ji yor da koo mën a ah of nag noonu la de sar sarale rek nag dina yaatu na yëfi yaa ah bu mu yem ci Baye Farba dong na yaa waay na yaa ah moom kat bo ci nekkee da ngay fekk mu indépendant na ya na ya na ya wacc leen bu ngeen jógee ci baye Faal ba ngeen tarax laxe ba ci ñooñee may baña tuddu bari na bari na bari na bari na Sénégal lu ko delloo ginaaw rek moy xaalis biñ rënk ci armoire yi xaalis bi ba war rënk ci armoire ya compte ci banque yi de ay compte yu ndaw lan am ci banque yi ndax xamna na ne buñ ko dencee ci banque yi dañuy feñ ci ron lay lan ko def ak armoire Baye Far ba ay Baye Far ba <laughs> Baye of nag Baye of nag ay waay nag nag nak nag Baye of nag nag waaw noonu la de côté yooyu la de bu yaatoo rek ñu jël de bul yem ci Baye Far ba dong tarax laxi leen ba feneen ak feneen ak feneen ah man di ah Baye Farba Ngom ab sàcc la de sàcc la am na fit ab sàcc la te am na fit man Baye Farba mii jaaxal na man yi milliard ah coupeur de fleur coupeur de fleur jamonoy Ablaye Wade jamonoy Macky Sall nga doon um ministre doon multimilliardaire ah Sénégal rek la am man de daaw ba ren maa ngi yéene ay saabu te mënuma dajale sax million. <laughs>